ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ci seen i actualité du jour des koy doo rek nag mbiri kii di Dieynaba Baldé ñu gën koo xam ci Dieyna Sen Petit Gallé ak kii ñuy wax Bril Faye Fo ñoom ñaar nag niki tey lañ leen ni atte foofee ca tribunal flagrant délit bu Dakar moom na ba Dieynaba Baldé nag bu mu jàkkaarloog attekat yi daal dinay rek reconnaître benn partie ci li nga xamante ne moom lañ koy euh, tuumaal nee na nag téléphone Bril boobule moom moo ko daal di jël waaye nag sàcc ko benn yoon kon lim ci jublu woon nag mooy am ay preuve ndax ay nit yu bëree bëri na sax ñu nekk ci entourage am da nañ koy faral di wax ni Bril foo daf ko infidèle maanaam daf ko doon trompé ak yeneen rek xale yu jigéen moom nag nee na ba mu ubbee téléphone ba yooyu la preuve mu ci soxla woon gis na ko ndax gis na muy wax ak yeneen xale yu jigéen eh, yoo xamante ne nii rek dafa doon génn ak ñoom eh, si noonee si la defee ay capture d'écran daal di koy envoyé boppam ci téléphone am WhatsApp ngir rek daal di am ay preuve moom Dieynaba Balde nag eh, dafa sax daal di mujjee baalu ak ki nga xamante ne moom mooy Bril Faye fo ndax nee na lii lépp jalousie moom moo ko ko yóbbee moom Dieynaba Balde te bi mu koy def nag dafa meroon rek waaye bëggul woon yàkkal dara ki nga xamante ne moom mooy Bril Faye fo moom moomu le ginnaaw bi mu taxawee ci baar ba daal di ne xam le ni Dieynaba Balde ginnaaw ni mu ko suspecté moom itam noonu la ko suspecté ndax yàgg nañ ko wax ni Dieynaba Balde nekkul koo xamante ni nii rek dafa réglé wax nañ ko sax nag dafa daan fréquenté ay autorité yu baree bari ci réew mi bokk na ci sax ñooñee ay ministre moom Bril Fight For loolu la daal di xamle rax si doole ni message yu chantage yu ñu ko daan rek yónnee nee na laaj xaalis bokk ci ñoom li ñu ko daan wax rek mooy di ko envoyé capture d'écran yi nga xamante ni ci téléphone am la ñu ko jëlee ba noppi nan ka bàyyi xale bu jigéen bi soo ko deful rek sab carrière dinañ ko yàq yaxeet yooyu la chantage moom lañ ko daan faral di yónnee ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ay avocat Dieynaba Baldé ak i ñooñam la ñu xamle rek mooy nañu ko daal di rek relaxé ñoom nag dañoo jàpp ni waykat bile victime la ci ay nit yoo xamante ne nii ñoom ñoo ko mag te daal di koy sut xel foofu waral ñu koy daal di influencé si yéen yi moom Dieynaba balde nag ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay présumé complice am di Ali Baldé ab frère ak kenn ku ñuy wax Pape Ba niki 7 septembre prochain moom lañ leen fas yéene jugé ndax àtte euh, tey bi dañ koo dàkk ba keroog le 7 septembre waaye nag dañu delluwaat foofee ca prison ndax seeni avocat demande de liberté provisoire bi ñu ñaanoon juge bi dafa ko rejeté moom naa Baldé sax nag ñuy wax ni jamono ji ñu ngi ko rek euh, internet foofee ca pavillon spécial hôpital euh, Dantec ngir nag mu daal di fay passé période d'incubation waral mbas mi di coronavirus su ko defee bu temps boobu jeexee bu fekkee itam dañu koy tëj mu door a dem ci maison d'arrêt pour famille foofee ca ginnaaw raay nag lu kenn mësta gis moom moo fa am foofe ay bayfaal yoo xamante ne nag ñoom ñoo bëggoon a amal seenug cant ginnaaw bi leen ko police daal di interdire ndax amuñu autorisation ngir def boobule manifestation publique ak mer ba futt nag lañ ca jëlee waral lii di auto police bi ñoom dañu ko yàkkate yaxeet ak ay xeer ak lépp loo xamante ni jot nañ ko jël ko daal di ko cay sànni di yamuñu ca loolu doy leen gannaaw ba policiers yi ñëwoon nag di leen somme boobu lépp interdiction Fall yi ñoom ñoo leen ëpp foofu dañoo daal di rek dem ba fa nga xamante ni moom mooy euh, poste police ba daal di leen fay rek dàkka ji foofee itam dañu ko yaakaate daal di fay euh, sànni ay xeer euh, waaye ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy policiers yi kenn jotu cee am ay gaañu gaañu itam bërëb ya wax nañ ni benn yàqu-yàqu jotu faa am. enquête bi jëm ci ki nga xamante ne nag ab agent bu Lonase la te ñu fekk ko mu daal di xaru jamono ji mu ngi avancé bu baax a baax moom mi di wuyoo ci turu Marcel Apologan nag dañ ko fekk ni ki démb mu daal di rek xaru enquête bi nag yóbbu na ñi nga xamante ne ñoom ñooy commissariat bu Pikine ci kenn ku ñuy wax Sidi moom Sidi moomee nag sax ak kii di Marcel ñoom ñaar dañ doon gérer ay kiosque PMU te ñoom ñoo bokkoon sax bërëbu liggéeyukaay ñu sukkandikoo nag ci journal bii di Les Échos di ñu jox xibaar bi moom Marcel mi nga xamante ne moom moo ñàkk bakkanam fekk nañ ab benn note ci moom boobu la lettre nag moom mi ngi ci bind Sidi kii di Tony yoreelu ma ko dara moom moo lekk samay million million 269 mille francs daal di ciy teg au revoir Sidi ci boobule lettre moom Marcel loolu la ci bind boobule Tony nag nga xamante ni tudd na ko ci lettre am moom itam ñuy xam le ni agent wu Lonase la moom mu ngi liggéeye foofee ca diwaanu pikin tali bu mag enquêteurs yi nag li ñu xam le mooy gisuñu benn trace gaañu gaañu ci new kii di Marcel luy waneen rek dañ ko agressé wala da doon xeex ak kenn benn corde benn carte nationale d'identité ak xaalis bu toll ci 76 000 francs jamono ji nag ab néewam daal di nañ koy yóbbu ci benn morgue hôpital ngir ñu defal ko autopsie su ko defee enquête bi mën a wéyandi ñu mën a xam ci yan anam la ñàkkee bakkanam moom Marcel Apologan ci diwaanu corniche ouest bu Dakar nag benn business bu doy waar moom lañ fa découvrir benn nappkat ay atam toll ci 49 ans moom nag ñu koy accusé lii sexuelle ci ay yalwaankat yu jigéen ñoom ñooñee nag seeni at sax weesuwul lekk fukk ak juróom maanaam 15 euh, ans moom mi leen nag ci li ñu xam ne si ay xibaar daf leen daan yóbbu euh, ci ay rukk yoo xamante ni soriwul dara corniche ouest ba ngir daal di rek sekk ak ñoom bu ca noppee nag daal di leen yi neexale xaalis yëf yi nag mi ngi feeñ sax ci kenn ci ñoom di victime yi ba mu demee euh, ca commissariat bu Point E nekk foofee ca rond ba daal di dénoncé boobu le daar daar nag ñoom policiers yi ci lañ dem daal di koy jàpp moom boobule nappkat nga xamante ni turam tudd nañ ko ci mbir mu yéeme moom yooyu la xale nag ñoom lu ci bari ay malien lañ ci li ñu xamle kenn ci ñoom di wuyoo ci turu OS mu ngi ci def ay révélation yu doy waar mu ngi wax nag ni pa boobu di Andiaye daf leen daan proposé euh, lu ci bari lii di xaalis su ko defee euh, bu ñu wàccee ñu daal di ñëw foofee ca rukk ya fa mu leen daan wow Euh, ñu daal di rek sekk ak moom euh, mi ngi xamle sax nag ni benn rakkam boo xamante ni euh, fukki at képp la am moom Andiaye mës na kaa yóbbu ca bërëb ya laata mu ko violé moom OS moom di wax nag ay atam mi ngi toll ci 14 ans. nee na nag bi ci mujj kii di A Ndiaye ginnaaw ba mu noppee ca la muy def euh, biyewu mille francs moom la daal di koy tàllal moom xale bi nee na daf koo këf ci la sax daal di dem ca policier yu nekk commissariat bu Point e, euh, ngir daal di koy rek euh, dénoncé moom A Ndiaye nag ginnaaw bi ko policier yi jàppee teg ko loxo li nga xamante ni ñu ngi ko koy tuumaal yépp daf koo daal di rek weddi teg ko ci suuf moom nee na nag benn restaurant bu soriwul dara corniche ba foofu lay fréquenté waaye rek defu fa dara lu raxas fa ay oto itam di yalwaan loo xamante ni daf koy euh, dundee bi ñu ko laajee nag kon lan nga sikk ak yooyu le xale bañ tuumaal la euh, lu tooy nii nga xamante du ay caaxaan euh, dafa xamle ni rek moom dafa daan dem ci ñooñu nga xamante ni ay yarwaankat la ñuy jógee Mali ngir rek di fa wecceek moom Andiaye mi nag ñu ngi koy toppee détournement de mineur ak incitation à débauche présenté woon nañ ko nag procureur tribunal grande instance bu Dakar ni ki fan yi ñu génn fi ni ne nii daal dinañ koy defeerewaat bi mooy ñeenteelu yoon lu jëm nag ci gaal génn te mu jógee woon foofee ca diwaanu euh, Saint-Louis euh, doon dem euh, Espagne te ay nit ñàkk ci seen bakken ñeneen ñu bare bari jamono ji sax ñu ngi leen di wër ginnaaw ay néew yu ñu ci commencé repêché bokk na ci nag benn soxna bu ñuy wax Oumy Ndiaye dëkk foofee ca diwaanu Saint-Louis moom moomale nag ak njabootam ñu ngi témoigner ci ak demam moom Oumy moom moomee sax bàyyi na fi nag ñaari tuut tànk kenn kay atam tollu ci huit ans euh, ki ci des am trois ans képp ki nga xamante ne nag moom mooy borom këram mu ngi témoigner ci journal bi di wax ni nag Oumy Ndiaye manqué wul woon dara euh, te itam mësul woon a waxtaan ak moom ci projet tukkeem bile. kii di waajuram bu góor itam mu ngi ñuy xamal ni Oumy Ndiaye di doomam joojule daanaka sax ci fan yooyee laata moo def boobule voyage gisante nañu waaye waxu ko woon benn yoon dafa bëgg a yéeg ci gaal yi daal di dem Espagne lim ko xamaloon kay moo di dafa doon bëgg a dem fee ca Dakar ngir wuti fa ay marchandises moom moomee nag ginnaaw bi bato bi daal di këppoo ci la ñàkk bakkenam jamono ji bàyyi fi borom kër ak ñaari tuut tànk village bi ñuy wax nag Lumbal Gawdi nekk foofee ca commune bu Tessékéré euh, département bu Linguère jamono ji nag ci njaakare lañ nekk loolee ginnaaw benn soxna buy wuyoo ci turu Bayel Sow moom moomee atam mi ngi toll ci vingt-huit ans moom Bayel moomee sax nag dafa wannoon lor ba sori loolu euh, mu ngi woon ci juróom-ñetteelu weeram moom itam sax daanaka am na juróom benni bant yu fi bàyyi jamono ji nag dafa ñàkk bakkanam ci ay circonstances yu méttee métti moom dañu ko fekk nag niki démb ci altine gi Euh, mu daal di pendru ci benn garab boo xamante ni soriwul dara boobule village ginnaaw sax nag bi mu absenté wu lu yàgg ci domicile familial bi euh, wujjam ak ñeneen membre famille bi yëpp dañu nekkoon di ko wër ci yooyu le fan yëpp gisuñu ko ci naka noone nag la ñu daal di mëne seeni enquête ba gis ko ñu fekk ko mu daal di pendru nag ci benn garab bu soriwul dara village bi euh, ñu ngi wax sax nag si ay xibaar mu ngi jëfandikoo benn corde ngir def loole si naka noone nag ñoom habitants yi ci lañu alerté gendarmerie bu yang yang jàng ak personnel soignant bi nga xamante ni moom moo nekk ca bërëb ya ginnaaw bu ñu defee constat bi nag moom néewam Bayel Sow dañu ko déposé ci benn morgue hopital euh, bu nekk ca Daara ngir defal ko autopsie. ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ay mbokkam li ñu xamle mooy moom Bayel Sow moomee nag ab diir ngi nii xelam nag daanaka dafa mel ni ku demoon mu amoon ay jafe-jafe ci wàllum xel jamono ji nag daal di ne wuyu ji boroomam bàyyi fii juróom-benni bant gendarmerie bu yang-yang itam daal di ubbi ab enquête ngir leeral ana ci yenn anam la faatoo moom Bayel Sow mile mbokkenteeno ci fi la ñu yem ak yéen ci seen actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar jaa ngeen jëf ami internaute nees gis ñu tegtal leen seen revue de presse ak Falda Mel revue de presse sur Thiès Info nuyu naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci yéenekaay revue de presse bi ñu door a koog naqar naqar naqar ba naqar jeex kenn du gën a am naqar waajuru gone gi nga xamante ni daa wakaasi woon yéenekaay bi ne mettit ba mettil jeex kii ni mu faatoo faatu du ko gën a metti gone gi ma nga bàyyi ko woon ca Mbuur waaxu ca Tuubaa dem vacances yéenekaay bi ne gone gi am lu toll ci juróom-ñaari at ndox mu bari mbënn mi ni xas ci réew mi rawatina ca Tuubaa yóbbu na gone gi am juróom-ñaari at jóge woon ca mbuur yéene kaay bi ne ci quartier si xaw ga la ko ndox mi yóbboo ginnaaw bu mu duggee ci ndox ma lapp ca yéene kaay bi ne mu xaw caa amub diir ñu génne ko mu faatu est-ce que ndox maa ngay faat de moom kay ndox ma fi mu lu bare bare ba mhm. ba yóbbu lu bare bare bare bare bare foofa Saint-Louis lay wuyoo ñi la bu ñu ci taw bi déedee dañ doon tukki far suux ca géej ga yéene kaay bi ne juróom fukki nit ak juróom ñett yi nga xamante ne dañoo bëgg na tukki tekki dem ca réewum tugal jàppoon ni bu nu jaaree ci géej gi dinañu yegg ci jàmm ak salaam yéenekaay bi ne seen gaal gaa ak ndox dem ba ndox ma gaal ga attanatu ko mu suux yéenekaay bi ne ñaar fukki nit ñuy dund lañ ca gis ak ñett ñu faatu est-ce que a metti te doy waar ubbil yéenekaay fanweeri nit ak juróom gisuñu leen te loo ci xamul marine nationale boobaak nega ni ñi ngi yendoo ko fanaan ci géej gi ngir gis leen waaye ba nega ni gisaguñu fanweeri nit ak juróom ya ca des te kat netal loolu yéeral loolu ajjuma ba ñu ne ci ndox mi limiti na te doy waar kenn ca ñoom ca ña rëcc ña nga xamante ni ñoo demoon ca géej ga yéenekaay bi ne kooko Bilal Seck li wuyoo sunu gaal 24 ne waa ji ab téer la moom mi ngi ko convaincre ginnaaw benn xew bu magam amam benn waaye ñëw fa convaincre ko wax a wax a wax a wax wax ba mu jël li nga xam ne moo di 200 000 am def ko ci géej gi Bilal ne dañu daw ba ci yàgg ay kilomètres kilomètres lu toll ci 25 kilomètres ba ci yàgg gaal gi commencé amum ndox ñu jéem jéem mënuñu ci dara dellu jéem jéem mënuñu mënuñu ci dara ba yàgg ndox ma ëpp nu doole wili pandañu ñu daanu ñii di jéem a fee ñii ndox mi yóbbu leen moom bilaal mi mucc ca géej ga la mu fësal xam le ko moo di moom laa yëkkati woon sama 200000 jox ko gis ko muy faatu est-ce mu faatu ca saasa yéenekaay bi ne ca Pikine tali bu mag itam benn waaye lan fa fekk mu daal faatu ubbil yéenekaay yi lii ko faat yéem na ma jaaxal na ma boobaak nege ni nag mi ngi faat de waaw waaw ni coronavirus moo man gars yi lu leen naqari ak lu leen a yi tax ñuy takk seen bopp ci baat di sandaamtal seen bopp kii itam daa sandaamtalati boppam pàndu boppam waaye yow lu ko daal yéen a kaay bi ne waa ji ab gérant PMI la woon ña ngi ko gis ni ki altine bii nu génn waaw bi sept heures jotee lanu xam ne waaja dem na ay waay ay waay réew mi tàng na de ka dem demaat dematit faatu laa la wax moo di dawalkatu scooter bii ca padduwaay yéen kaay bi ne waa ji ci jëmi boppam camion ba waaw moo ko daal di tël rek mu daal di fay sedd guy ca saase yéen kaay bi ne doonte sapeur pompier jotul a agsi ba jamono ji nga xamante ni yéenekaay bi waaye nag daanaka seen teewaay amu fa solo ndax waaj ca saase la faatu ay la yàlla ko yàlla yërëm amin ñu nuy ñaanal yàlla yërëm leen moo di fukki nit ak benn yi nga xamante ni ñoo faatoote ci mbas mii di coronavirus gii ni gas ni gàjj ni gajar ci dëkk bii di askan wii di sunu gaal gii yéenekaay bi ne nit ak benn ñoo faat laa la wax démb ci altine bii ci ay sunu gaal gii dund bi seer lool ceeb diwlin meew ak suukar suukar si li ko tax a manqué ci réew mi tey ma fësal ko tey ma yeggale ko du leen lu dul suukar si yóbbu giñ ko yóbbu ci yeneen dëkk yi ñu wër di ko importe yéen a kaay bi ne daanaka ñun ñii di askan sunu gaal sukkar si duñu doy dekat lu réewum la mu di këlamtikoo boo ko bëggee jël may ci beneenum réew këlamtiko ko day gën a mitti ndax duñ ko àllawti ba koy foon ñeex moo nun ca mën a jote tey xam naa ne daal korona mbënd mi moom xaw naa sonal gaañ tey météo wax la de nee ndox mi est-ce des ci kaw ëpp tawaay moom kay yàlla na yàlla def jàmm rek jàmm ji nga xamante ni moom la Ousmane Sonko doon dox ba mu waral sabab mu dem ca Touba jaale ji njabootu Serigne Massamba ginnaaw génn ko àdduna ki nga xam ne moo di Serigne Moustapha Mbacké Massamba yéen a kaay bi ne Ousmane Sonko koo njiital parti Pastef lii fekk fa xalifab sëriñ Masamba ñu gën koo xam ci sëriñ Mamor Mbàkke tey fi mu toll nii kay ñi nga xamante ne ñoo bëgg a yor réew mi yëpp fu ne ñu ngi fay dóor seen bopp ngir am li nu bëgg yéene kaay bi ne nga a toog fu fay dóor seen bopp ngir toog yéene bi ne Thiès Nord ma lay jóob bësal waaye itam dëggal la nga xam ni moo di candidature am ngir daal di jël li nga xamante ni moo di mairie bi ngir mën a soppi waaye itam yeesalaat li nga xam ni moo di gox bii nga ni ma nga ni ma lan lan la xew fële kay fa Tuuba ay waay dëkk bu sell ba di leen seet waay gaay li ngeen di def la fa xew a yéeme te doy waar benn waay moo fa détourné laa la wax am mineur bu am lu toll ci juróom benn at yéene kaay bi ne wiyoolu na ko ñaari yoon ubbil yéene kaay bi mbir mi nu mel ma nga xew a ca Daaru naan la waaja wax moo di ndaw si yàgg na ak moom de daanaka juróomi at génn nañ ko déggal lii déggal lii maanaam ba muy am onze ans lan li woon waa ji weeduwu dara ca lañu koy jiiñ dem na ba jëndal ndaw si sax ab téléphone portable yéene kaay bi ne da ko wiyoolu ba noppi yëmbal ko waa ji ne séq ndaw si ñaari yoon ndaw sa la mu puusal xam le ko moo di kii daal demoon na ba daanaka sax chauffeur la ci man yaay jaa tax ñu xamante déposé gi mu ko daan déposé am na bis nag mu koy déposé ba yóbbu ko ci endroit boo xam ni kenn nekku fa ko njëkkaw yoole ba nuppi di ko menacé menacé mor naa ko boo ko waxee ba ñëpp dégg ko di nga xam ni lépp dëgg la tey ji lépp dëgg joojee feeñ na ba waa ji tëj nañ ko kaso ba ginnaaw bu ko bàyyi plainte moo bàyyi ndax yéexul ah, ku nekk ak sa doom ba keroog muy am 16 ans ay waay leen seetlu waajur yi dee leen seetlu ah waaye tamit de waa ji kenn gënu ko doy <laughs> si laatiir bu baaxee rek bu seen ma clave gi ñu dem ba subaak jàmm ak salaam yàlla ko yàlla def ci askanu sunu gaal seen mbokk seen xarit Fall Dambeel jàggeen Joof ah ñoo ko déggandoo cay dëkk bi daal toñ na waaye tey nag mbokk yi suñu kaawteefu tey bi nag wax dëgg yàlla euh, suñu kaawteefu tey bi euh, sama xol sama xol neexul sama xol neexul ndax dañuy wax rek li nga xamante ni moom la waa ji nekkoon demoon ca géej ga mucc bilaal Seck wax euh, bokk ci ñi demoon moom nee na euh, wax dëgg yàlla euh, gis na ki nga xamante ni moom mooy moom la jëloon yëkkati jox ko deux cent mille mu faatu ci ci ci kanamam ndeysaan xoolal loolu rek lu ko gën a metti euh, moom nag téyër la waa ji téyër la am na lu toll ci li nga xamante ni moom moo di ñaar fukki at ak ñeent bokk ci cinquante huit personnes yi nga xamante ni ñoo demoon euh, doon jéem a dem Espagne far seen boto ba suux noonu rek lañ ko mën a gisee dippe euh, moom nag la mu fësal xamle ko moo di euh, téer la di woon bu man nag li muy def ca am ñaxam ngénte lu amoon benn ngénte lu amoon benn frère bu doon ngénte la am rek benn waxayam waaw benn waayam boo xamante ni euh, ñëwoon na ca ngénte la convaincre ko xam nga rek gars yi ngénte la dañuy teg seeni sées toog di waxtaan waaw léeg-léeg da ngay gis ñaar ñu petoo toog di waxtaan di togg seenu laax comme ni ko euh, Fall Njaga di waxee waaw ci waxtaan gi ñuy waxtaan rek ba seen xel dem ci wàllum tukkeek yooyu waxtaanu tukkeek yooyu ci la convaincre booy bi nag ni ko eh, baax na affaire yooyu noonu xam nga rek comme gars yi li ñuy wax waxa waxa waxa waxa wax ba waa ji yëkkati deux cent mille am joxe ko ngir dem waaw ah, waaw waa ji nee na bi ñuy dem début bi tutte lépp nikkaloon ñëpp ci jàmm ak salaam lañ nekkoon yëf yi ñuy daw di daw di daw di daw di daw ba toll ci ay vingt cinq kilomètres yooyu vingt cinq kilomètres waaw bi ñu tolloo ci vingt cinq kilomètres nag ci lañ commencé sentir ni euh, gaal gi gaal gi mi ngi amum ndox gaal gaa ngi commencé amum ndox ndox maa ngi dugg ci gaal gi oho euh, ci naka noonu rek ndeysaan euh, ci la ci ci ci ci ci la demee ba gaal gi àttanutu ndox mi euh, daal di daal di def li nga xamante ni moom moo di dem ba ndox mi yóbbu ko mu diig ñi mën a feey feey ñi mënta feey di lappi lappi ndeysaan di lappi lappi ndeysaan ba ndox mi yóbbu leen mu nekk lu metti lool lool lool loo xamante ni wax dëgg yàlla euh, lu tollook euh, juróom fukki nit ak ak ak ak ak ak ak ak waaw ak ñaar fukk ak juróom ñett ah, fanweeri nit yaak juróom yépp gisuñu leen xam nga ni lii dafa metti ñetti nit faatu ca ñu gis ñaar fukki nit metti na lool metti na lool waaye metti na lool ndeysaan di wax rek gone yi nanu toog nanu toog rek jéem a investir fii jéem a liggéey fii te xam ni euh, wërsëg moom bul la bu am ay numéro bu wëlbatikoo ba sa numéro génn rek nga jot ca jàmm ak salaam yàlla ko yàlla def ci askanu sunu gaal def ko ci képp ku ñuy teewlu seen mbokk seen xarit Fall Damel di leen jox dig daje ba suba ak jàmm ak salaam jaa ngeen